jërëjëf Navel 48 heures yi nga xamante ni moom nga organiser fii Ndioum ko askan wi joxe ay masque jàppale askan wi xool li nga xamante ni moom mooy révision list électorale yi lan mooy sabab bi ak ambition bi. waaw maa ngi leen di jaajëfal bu baax euh, Ali. Mm-hmm. di leen di dalal jàmm. Mm-hmm. donc de ce fait que c' pas évident. Mm-hmm. ngeen jógee plus de 500 ñëw ba fii si Fouta. donc euh, ñu ngi leen di dalal jàmm en tant que responsable politique. ñu ngi leen di dalal jàmm en tant que conseiller municipal. en tant que doomu fils de Ndioum. vraiment ngeen ñëw fii di ñu seet si. amul leneen lu ñuy def lu dul mbégte. kontaan vraiment si activité léegi activité bi lan mooy bi. waaw activité bi mbébét bi lenn kese la xam nga boo nekkee doomu gox euh, ngay def ay action bi nga ay action yi nga xamante ni c'est des actes yi nga xam ne def def nañ ko balaa ñu ñëw fii si balaa ñoo euh, ñu dugg si politique ñu dañuy juddoo rek commencer def des actes euh, ay action yi nga xam ne action de développement la donc def nañ ko ba yàlla tey dugal ñu si politique nekk si membre fondateur mm-hmm. euh, de l' pour la république mm-hmm. donc tey ma woote une assemblée générale mm-hmm. ci biir assemblée générale bi ma ne aha balaa may woote assemblée générale bi il faut may def li ma doon def li ma daan doon def si koñ par koñ dëkk par dëkk li ma doon def si environ Ndioum bi yëpp di construire ay ay ay ay ay mosquée di def ay action sociale Navel fi nga xamante ni moom mooy Ndioum mën nga ñu dikkal si position géographique bi nga xamante ni moom mooy Ndioum. waaw Ndioum euh, turu Ndioum moom dafa ñëw si si benn oiseau euh, njuum vraiment euh, bokk na tey ci communes yi njëkk si réew mi et Ndioum am nañu commune am nañu commune depuis presque quatre-vingt-dix ñu tey dugg nañ ci biir Ndioum Ndioum mu ngi nii. Euh, lii mooy njum fii mooy entrée njum nag. léegi entrée bi ñu fekk fi benn constat boo xamante ni gis nga nu mel lii lan moo ko waral. waaw lii de moom c'est déplorable xam nga man conseil municipal la mhm. donc lii dañ kaa vote woon mhm. euh, suñu conseil municipal mhm. ñu génne benn 7 million bi nga xamante ni dañuy construire képp kuy dugg ci biir dëkk bi nga xam ni yaa ngi dugg njum yaa ngi téye arrivé à njum et puis njum nan la mel dafa war a éclair dafa war leer dafa war lépp dafa war a set. mais c'est dommage nga ñëw fekk panneau bi ça fait plus de deux ans mu ngi daanu fii kenn kenn kenn lijjantiwu ko kenn waxu si dara donc c'est dommage ñëpp jaar fii le maire actuel muy jaar fii ñeneen ak ñeneen mais jéemuñu sax def benn effort parce que lii xamu ni du valeur de sept millions mais loolu la ñuy génnee loolu la ñuy def comme budget en tant que conseil municipal mais tey c'est déplorable ñu fekkee lii njum duggee nii parce que man parfois damay rus lii yëpp nag ñàkk am jot sa gox moo koy waral. jërëjëf euh, suñ dugg si njuum daf ñuy wan carrément li nga xamante ni moom mooy une politique de suivi état mën na teg programme réaliser ko mais saa su nekk dafa war di ko nemmeeku di ko perfectionner mais perfection bi des na si li nga xamante ni moom mooy entere njum léegi suñ duggee si biir nag dinañ xool yeneen jafe-jafe yi nga xamante ni moo nekk ñum ak askanu ñum ak domaine de compétence yi nga xamante ni la ñuy ndatee mairie waxtaan si waxtaan si ki nga xamante ni tamit mooy engagement Navel Thiam ak lépp lu muy def si dëkk bi topp leen ñu mbokku téléspectateurs yi kundiyaan min jaadina welcaam o ko giɗam bange selam bange omo hawana kimi hay hunde ne welcaam waw alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin nawel thiam machallah engagement bi mu jël fii engagement bu baax la parce que chaque jour mu ngi dox si li nit ñi bëgg mu ngi dox si lan la nit ñi lan moo leen manqué lan la ñu war leen dolli si si eh, biir commune Ndioum bi bis bu yàlla sax si lay dox bu yeewoo si lay dox bu fanaan si lay dox. bërëb bii ñu nekk ban bërëb la. waa fii sama boulangerie la boulangerie Libaas Ba muy tudd boulangerie Thierno Tidiane li bu Daara bi moom lañ ko tuddee waaw. moom fii la nekk quoi. mais tey noo gisee candidature bi nga xamante ni moom mooy candidature Navel Thiam si mairie Ndioum. waaw alhamdulilah gis naa ah, taxawaayam bu rafet macha allah Euh, gis naa taxawaayam gis naa ay objectif am muy def engagement yu rafet yoo xam ne mu ngi koy def yoo xam ne incha allah bu demee ba sotti incha allah dina amal waa Ndioum euh, solo dina amal solo bu baax a baax a baax. jërëjëf est-ce que mën nga ñu ko ñëwal si Paul carrément li nga xamante ni Navel Thiam moom koy def ci biir dëkk bi ak taxawaayam ci biir dëkk bi ak candidat bi nga xamante ni moom la jëm di élection municipale yu ñu jëm. waaw mbiɗa salmina bandiraɓe jum kala no guila mbeɗa iddora maire amen hannde cheikh oumar an mbiɗa iddoraɗo makko hannde salmina ɗum e salmina denndaangal wonɓe ɗo e jum heɓe pop e wonɓe ɗo kala mbeɗa wiya tan naawel caam ari ari addi jam ari ngam foppude gonɗi jumnaaɓe sababune hannde kala gonɗo ɗo jum alaa ɗo jagguɗa walla alaa no mbaɗɗa so a allah ene wawi no walliruma hannde ɗo jërëjëf euh, suñ mbokku téléspectateurs yi ñoo ngi dugg ci marché bi dugg ci dëkk bi jël li nga xamante ni moom la te waa dëkk bi di wax si Noël Thiam ay témoignages yu rafet ñoo ngi ñëwaat si yéen à très bientôt incha allahu rabi léegi ñoo ngi dem si marché bi pour dikkal leen lan moo fa xew ak li nga xamante ni lañ fay def ak suñu responsable Noël Thiam di Noël Thiam bange selam bange a jërëjëf ñoo ngi fi si marché Ndioum ba léegi di ànd ak le responsable Navel caam pour xool si ñi nga xamante ni ñoo nekk si marché bi di liggéey xool si jaaykat yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ bi na ngeen def. naka seen marché Ndioum bi. waaw bi de mu ngi fii rek. moo ngi neex. mu ngi neex dang dang. jërëjëf euh, mais suñu waxee marché di leen wax économie. te xamante ni marché moom moo yor li nga xamante ni moom mooy dëkk tey ci li nga xamante ni moom mooy mairie ñum ak marché bi seen collaboration nu mu demee waaw euh, maire bi moom moo euh, mu ngi fii rek en même temps maire maire bi tamit mu ngi fii dafa am nag boo xam ne mu ngi manqué ci marché bi lu bari euh, moo tax marché marché bi dog na waaye dafa am yoo xam ne melul nu ma war a war a war a war a mel si wàllu kan mooy seen yaakaar si saafara loolu si élection yu ñu jëm ñu ngi yaakaar ci xale njum yi mais rawatina nag ci koo xam ne ñu ngi tudd Nabil Thiam moom vraiment moom euh, taxawaayam baax na instant bii nii parce que moom euh, xalaatam euh, ak lu muy kii def ci def ci njum yaakaar naa rek moom boo boo boo jotee jotee maire bi njum dina kontaan incha allah. jërëjëf merci Jakarta man. sëñ bi da nga def salaamaaleykum. waaw tur bi naka la. Moussa laa tudd. na nga maa ngi si jàmm alhamdulilah si jakartaay nga liggéey. seen liggéey nan la demee fii biir Ndiour. ah liggéey day tane. des tamit yaa ma gën a xam day day tar quoi da ngay toog si naaj bu tàng bi yaa ma gën a xam balaa ngay am deux ans sax problème la te tamit gendarme yi dañuy sonal. sonal bu demee nan ban genre sonal. sonal jékki-jékki rek def benn genre couvre-feu rek di téye moto yi yaa gën a xam. mais est-ce que yéen nekk en règle yor ay casque ak yenn gis gisuma fi casque de. waaw casque mu ngi nii mu ngi fii maa ngi yor casque mais des fois dañuy wax waxu assurance yaa ma gën a xam mais ana assurance ak moto man kay looloo ma jaaxal mais mooy loolu. mais ci yoon mairie war na ma moto war na mën a am li nga xamante ni moom mooy assurance. ah ñoo ngi wax waxu assurance mais ñun xamuñ fan lañ koy defaree. ñun ngay dañuy toog rek dañuy toog rek di xaar ba ñu leen fii lañ koy defaree ñu dem defari ji hay sa yiɗi yeede ko fof ko ɓeyda gueɗe limmel ngel ɗo e wuuro ngo guila affaire waɗi ɗo affaire laamiɓe yawtuɓe amin dañata amin dañata hen saabu sa woni e hunde duuɓi kam kewɗi mhm. foti yiitade hen hoorema mhm. hôpital o nan ɗo mhm. minen ɓuuri ɓalladema kono min ngala hen liggoto mairie ndi nan ɗo kono liggotoɗo amen ala fittoɓe enen ɗo liggotoɗo amen ala min ɓiyami noon université duuɓi nayyi hannde ronki dañde place waɗi ɗum ɗo ronki ko miskine mhm. jiganaɗo mum wuurani hannde mhm. ko min o jeeyowo ko min jogui hannde hirande kono sabu so ummiɗo ko ɓiɓe moƴƴuɓe kanko o nayel ca jiganaɓe men maayde guurdi maayde sabu ko nde wadde ko allah hokkima ko yiiɗi ko mhm. maw nafa wuuro ngo saabu ɓerde en tiiɗi omo selli ɓerde e radio ji hay fof wanni ɗum baaba o wanni ɗum banam gorko mhm. hay so wonnani mine weelim te mhm. mbeɗen so heeɓi candidat o ma allah waɗen suturo min ñaagui allah yo allah hokkamo yidde makko allah junno balle ɗe moƴƴina battane on jarama mayi fi yaagi si jaam sunguf kerbet laay takk ni waaw li si supp kanja lay dem ak mhm. ceebu géej ci lañ koy def waaw yaa booy tey ñoo ngi ñëwoon fii si Ndioum ànd ak responsable bi nga xamante ni moom moo tudd Navel Thiam pour mu nemmeeku dëkk bi joxe ay don masque lépp loo xamante ni tamit askan wi ñoo ngi koy jooy mu xam ko pour boole ko si programme si élection yi di ñëw loo ci xam ah man de li ci xam moom mooy dund bi daa cher jërëjëf waaw dund bi moom seer na wax dëgg yàlla fan yii mhm. ñun ñii di dem marché sonn nañu lool lool lool lool surtout waaw sonn nañu ñii di joxe dépense sonn nañu ñii di dem marché sonn nañu ndax loo loo yóbbu da nga koy jënd benn mu jeex diwlin yokk na ceeb yokk na saabu yokk na lépp lépp même jimbo moo gën a ndaw si marché bi yokku na. léegi ñu tollu si période boo xamante ni période Covid 19 la pandémie bi laal àdduna bi yëpp lan ngay wax ñi nga jiite ñu jiite pour ñu yërëm askan wi. ah nañu yërëm askan wi wàññi dund bi yërëm nit ñi dawal yërmande ndax fi mu ne nii ñëpp sonn nañ miskin yëpp sonn ñi am moom mën na am fekk ñoom du métti si ñoom waaye ñi nga xam ne dañuy fortaatu di di di dem marché ñooñu wax dëgg yàlla sonn nañ ak loo jërëjëf loo gisee li nga xamante ni Navel Thiam daf na ko ñëw si askan wi di leen nemmeeku. waaw pour nit ñi wax seen euh, doléance rek pour ñu nguur gi dégg leen ñu mën a leen a ñu mën a dellu ginnaaw jàppale askan wax dëgg yàlla askan ñi wax ak ñi waxul yëpp sonn nañ dëgg yàlla sonn nañ lool lool. nañu wàññi dund bi nañu wàññi lépp. jërëjëf yaa booy merci beaucoup ah. salaamaaleykum sëñ bi na nga def. salaam ça va. tur bi naka maa ngi tudd Amath Ba. Amath Ba waaw. tey Equivox TV moo ngi ñëw seen dëkk Ndioum ànd ak le responsable Navel Thiam pour def ay don masque ay gel xool list électorale yi préparer li nga xamante ni mooy élection bi di ñëw loolu noo koy jàngatee en tant que ndaw nekk ci ah loolu moom c'est vraiment c'est c'est quelque chose de bien quoi loolu moom affaire bu baax la. waaw ah, suñ ko defee moom dina mun a yokk dëkk bi ci kanam mun a jàppale fii ay parce que fii moom dëkk Fuuta mi dafa bëri ay problème ay affaire yooyu kon ñun suñu suñu amee. yan genre problème. ah problème bi ñu bëri na même ay problème électricité ba ay activité de travail lépp dafa manqué fii surtout les jeunesses surtout la jeunesse du moins. affaire jeunesse bi moom euh, dafa am ay problème yu bëree bëree bëri bëri ci wàllum lu ñuy def bu ñuy am ay liggéey ay ay consort est-ce que yéen pare ngeen pour am candidat boo xamante ni jeune lay doon ni yéen nga xamante ni lépp lu ngeen ko bëgg a wax di ngeen ko ko wax mu toog si seen mairie bi. waaw kii moom monsieur Navel Thiam euh, euh, fii laa ko xamee lu def li ma def ma ba ma xam ko dama dama doon ñëwoon benn benn kii benn suñu benn groupe. ma ñëw fi depuis xale maa bis boobu ngi doon def ay terminal li ma gis ci moom dafa ma neex en tant que homme engagé engagé pour soutenir euh, euh, les villageois aussi soutenir euh, la localité donc c'est pour cela que moom en toi en tant que acteur de développement moom en tout en tout cas moom mu ngi mu ngi ci yoon bu mu ci en bonne bonne bonne voie quoi mu ci bonne voie pour jàppale nit ñi jàppale secteurs yi comment ça va pour développe qu'on se développe lii mooy wane ne ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii biir Ndioum ñoo ngi préparé pour soutenir li nga xamante ni moom mooy candidat Ndefleng Thiam yan préparation ngeen nekk si loolu noonu ah préparation en tout cas nous sommes prêts nous sommes prêts ñun noonu pare nañ pour ànd ak moom tey ànd ak moom ëllëg parce que ànd moom acteur de développement la dafa bëgg a euh, local yi xam développé def. suñ mbokk yi ñoo ngi fii si Medina Nianga pour terminer première journée bi nga xamante ni moom lañ doon def ak le responsable Navel Thiam ñoo ngi kë ñoom Raki Thiam jigéen ñoom ñoo ngi toog ter ñu teg ataaya dañuy jox cousine Navel Thiam ki ne aw mu may Navel Thiam benn wéy bu ndaw bi nga xamante ni carrément moom la koy bàkkee ñu jëm si élection locale yi ñu xool ni ñuy def bisimilah. dina welcam o ko giɗam bange selam bange omo wona kimi hay hunde ne welcam o ko giɗam bange selam bange omo wona kimi hay hunde dañjam nawel ko ya dañjam dañjam nawel cam ko ya dañjam rango ƴiƴam sagataɓe ko ɗo woni jumdonde gural maysa ali eɗen gari e inde nawel cam gorko pullo gendiyanke gendiyanke ko cukalel cakalel ceganaguel ceganeji kanŋe enen gisere yontaɓe haymo anda nawel cam haymo yiyani nawel nani dille mum nde tawno nawel cam ko gorko pullo dariɗo ngam ɓamtude jumdonde ma sina toro heewi aroɓe ɗo ina punta men ina ɗayna men hande o noon en dañi barogel keccel woni rawandu ladde mbo hulani ɗen ƴaaki ngam ɓamtude toro e bellilde jumdonde masina toro en beltanima allah noon en beltanima yo allah rokkumo rokka julɓe kala ya barke seydina mouhammadou jaam hiire moon bandiraɓe yiɗɓe newel cam ko newel cam joƴƴini min ɗo konko tawi min ummade te hamin caggal caggal makko te hamin ñaagui allah kadi ko yiɗi ko yo allah yettinamo ɗum te janggo inchallahu rabbi kada min jiɗi laaɓede kadi jiɗɗo laaɓede foof ko ko joƴƴini min ɗo yo ar janngo sincane inchallahu rabbi ɗum tan joƴƴi min ɗo on jarama bon maa ngi nuyu waa Sénégal ñëpp vraiment di kontaan bu baax a baax tey ñu ngi fii si Njum Donde na Toro donc euh, suñu activité politique yi doon def euh, bi doon bi nga xamante ni dafa commencé tey nekk mardi 7 euh, septembre 2021 donc depuis suba vraiment ñu ngi ak yéen donc waaw mbébét bii rek mooy que préparation euh, on est pour préparer li nga xamante ni mooy suñu assemblée général bi ñu nar a def suba bu neexee yàlla donc euh, ñu ngi fii quand même euh, si dëkk bi tey def nañu pas mal de choses euh, ay activités def nañu ay démarches yu bëri e en même temps li ñu def lii yëpp dañ koy def ngir yàlla rek parce que boo bien sûr parce que tey si suba bu ñu yeewoo bi ngeen yeewoo fu ñu njëkk a def mooy que mairie Ndioum donc bu ñu jugee mairie Ndioum dañu demoon euh, brigade Njumbi donc comme non seulement dafa am chef brigade bu bees deuxièmement comme si euh, euh, période Covid la ñu nekk donc dañuy wax ni il faut ñuy jox leen ay masques donc on a donné des dons de masques ci brigade bi ñu dem ci marché bi encore ñu def proximité donc waxtaan ñuy jaay sunguf ñuy jaay siddeem ñuy jaay cere ñuy jaay ñëpp wane leen vraiment. di leen masaw parce que xam nañu li ñuy jaay ni duñ si am lu bari donc de ce fait que ñooñu nag da leen di war a encourager surtout ñun ñi nga xamante ni ñu ngi yëngatu si politique bi donc war nañ joxe exemple boobu de temps en temps di leen nemmeeku c'est que ñoom loolu loolu la ñu manqué si réew mi loolu la ñu manqué si dëkk bi donc ñi leen di nemmeeku ñi leen di wone ni vraiment ci lañ bokk et loolu c'est très important waaw jafe-jafe euh, xam nga jiite mairie dafa métti lool euh, xam nañu métti parce que munoo yenoo dëkk rek munoo boo ko waxee da si boole leneen du dem loolu moo tax ñu ngi gën a ñaaxaat euh, son excellence ñëpp ñi nga xamante ni nar na leen fal ëllëg na xoolaat bu baax ñi nga xamante ni na nekk non seulement des choix yi nga xamante ni choix dëkk bi ñoo leen di choisir ñoo leen tànn ñaareel bi na nekk li nga xamante ni aussi dañuy xam vraiment euh, euh, population bi moo leen tànn parce que loolu aussi c'est très important parce que bu bu la bu la bu la population bi tànnee rek vraiment loolu euh, avantage bu rëy la. donc loolu mbégte la rek parce que man jëkki-jëkku rek lii ñëw. ma soog a jóg dem si ñoom balaa dara di dara laa am ak ñoom ñëpp ay relation mu nekk jàmm mu nekk bànneex lu mu munti nekk dañu partagé man du ma fi géej lu ëpp un mois je suis pas maire je suis pas vraiment mais damay euh, ñëw gisante waa dëkk bi fi ma war a dox ma dox foofu ñi ma war a gis ma gis leen ñi ma war a jàppalante ñu jàppalante ñu def des yi nga xam ni loo ma tax boo gisee tey euh, ay dons yi nga xam ni ay rajo jàkk ay dons yi nga xam ne joxe nañ ko si yenn mosquée yi ak euh, yenn kilifa yi di def ay témoignages si ñun parce que euh, dañu yàgg jëflante lu baax donc et puis loolu aussi non seulement tey li may def nii yëpp nag bu nekkoon man kese kese kese kese vraiment euh, du ma si sonn. donc loolu li ma si tëjee rek mooy que awma seen fay donc euh, xam nga gënu ma leen dara ëpp ma leen xam-xam ëpp ma leen xaalis ëpp ma leen ngor ëpp ma leen dara donc euh, àdduna nag noonu lay doxee lépp loo gis dina am njiit ñoom ñoo baax ñoom ñoo tedd ñoom ñoo def lépp bu ñu demee nag jël sama modeste man bi nga xamante nii euh, ñu choisir ma donc parce que ñoom ñoo baax rek bu ñu defee loolu man awma seen fay ñoom ñëpp nag mu nekk góor mu nekk jigéen mu nekk mag ñi ñoom ñëpp choix bu ñuy def si man vraiment ak li ñuy wax si man si ñoom la donc vraiment di leen di jaajëfal góor yi nga xam ne ay borom soxna lañ bàyyi seen liggéey saa ba ma ñëwee fii encore c'est comme ça parce que saa ba ma ñëwee ku nekk day bàyyi li ngay def yëpp ñu yendandoo añandoo reerandoo doxandoo fi ñu war a dox dox fu ñu war a jaale ji jaale ji ñu war a konta euh, waxtaanee waxtaanee donc loolu mooy àdduna adduna nag parce que euh, lii yëpp nag jàngat bi nga xamante ni euh, bu ñu war a defante képp ki nga xamante ni war nga yor benn gox bu munti doon si Sénégal si àdduna bi gox boo munti bi nga xamante ni war nga ko mun a yor rek war nga mun a saafante ak nit parce que munoo saafar problème dëkk tant xamoo jafe-jafe dëkk bi. pour xam jafe-jafe dëkk bi il faut nga jege population bi il faut ngay waxtaan ak nit ñi il faut nga yaatu il faut ngay ree il faut nga ngay ñëw fii régulièrement mooy li ma waxoon keroog euh, à la 2 rek euh, saa ba may bu ma yàlla joxe réew mi joxe euh, amin bon bu ma yàlla joxe dëkk bi donc li may njëkk a def mooy que ma am disponibilité fi may liggéey ma ñëw concentré si dëkk bi def li ma mën nag ànd ak ak équipe bi nga xamante ni équipe bu mucc ayib pour dëkk bi dem si kanam parce que njuum war na dépasser fii donc di leen jaajëfal awma seen fay surtout yéen moom vraiment macha allah. waaw xam nga am na ñu ma doon proposé sax pour ma ma def ko si sama AG ma ne ko non man def ma politique boobu euh, bu dee ne nit ñi. dañuy ñëw pour jël si seen bal euh, pour ñu ñëw jël seen bal il faut que ma profité woote leen sama age loolu no taxuma jóg man ñi ma woo mooy ñi ànd ak man ñi ma gëm ñi ma mun a liggéey ak man ñoom laa woo donc euh, les ASC dama woo président ASC yi pour ñu daje na fi nga xamante ni soit stade wala fenn président bu nekk nga ñëw ma jox la sa ballon nga dem donc ñun politique boobu la ñuy def donc euh, politique boobu nag boo koy def Euh, euh, bokkul ak assemblée général assemblée générale bi c'est purement politique donc boobu ça n'a rien ak bii donc euh, di wane ni population Ndioum en tant que tel yéen a ma laaje woon naa def assemblée général yéen a ma ko proposé woon yéen def seen réunion yéen a def choisir même date bi ñoom ñoo ko choisir donc man awma seen fay ñoom ñoo def lépp man li ma mën rek mooy que ñëw rek fekke si ma wa sànni si sama grain de donc euh, aw seen fay maa ngi base politique bi yëpp vraiment ak seen idée seen taxawaay seen lépp awma seen fay donc euh, yàlla rek moo yor seen fay yàlla na ne yàlla taxaw loolu rek laa am di leen di sant vraiment ak le directeur euh, général bi nga xamante ni oyof lool c'est un vraiment frère ak lépp muy El Hadj donc Ali moom sama frère bopp la donc. mon cher yi nga xamante ni euh, tey image yi bu neexee wala bu rafete wala bu baaxee vraiment moom la ngeen supporter nag tàngaay bi ak lépp ñëw fi nekk ak ñun vraiment ak situation bi mais aw ma seen fay aw ma seen fay yàlla na leen yàlla